alquran moo ëllëgee ci man ñu ma yàdde oni nii mën naa dem ci kaso bi gannaaw njaaloo fi nekk wala dem ci kaso bi illa yi jëm ca loolee muy sina njaaloo mu ne yàlla na yëf yi daal ni mu demee ah sawna bi waaw waaw ñàkk tasrif yàlla day ndem soppiwuloo yow sama borom xam ni ci man kay day na pexem jigéen ñii boo ko soppiwul day asbu kon day boo wëttuwul ah danaa jàng illa yi na jëm ci ñoom waaw kunte kon danaa nekk mi ne jaay dina bokk ca way jaaloo ñu bokk ca way bàkkaara ñu yàlla nee na abdul fastajaaba ma daal di nangu fastajaaba daal di nangu rabbi borom la woon ñal ko ñaanam nga fas doon na seen pexe am lu bàyyi ko fi ndax indi woon ni te moom yàlla loolu moom sànnee ku dégg ki koy ñaan la alimu ki xamit li mu koy ñaan la su ma lawum ñeel leen min bi adimaa gannaaw ba nga xam ne ra aw gis nañ al ayati kiimaan yooyu dala yenn noonu attaay ñi ni ñu ni kon nag nee na nee na woon na ko def wala ñu tëj ko léegi nag nañ ko tëj lay layes jëm na ko tëj nañ ko tëj ku jëkk ko moo doon layus kii nag di layes taa ay ni nañ ko tëj ba waxtu nañ ko tëj nangami at nañ ko tëj danaa nangu wax daxala tàbbi na moom Yuusuf sit na fatayaani kon mooy fa ay lii daxala ah ndax tasmiya liif lay rafa waaw liif lay rafa donc yaani ñaari waxambaane ñaari ndaw ñoo sit nañu tàbbi jëng ba ñoo bokk bis buñ ko tàbbee maxangoo ànd ak Yuusuf kenn ka moo doon jox buur bi mu naan kenn ka moo yore woon ñam ba demee nag ca kaso ba xaala wax ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar bi wa saaxi inni arani ahsiru xamran aha kenn ci ñaar ña ka nga xam ne nag moom moo yore woon naan ga ne man de dama gént ñu nekk man arini woon ma ahsiru dama doon nal xamran sàngara dama ko gént dama gént ba akulu mu ngay lekk teyru njanaaw yi aham ñu ci mburu mi nabbi wax wéet na kii gént na xam nga boo nettalee gént rek keneen itam na wala may dama gént taawili wax nu nabbi naa bi taawili nabbi naa bi taawili wax nu ko waxoon naa leen ni gis nanu la mel moo si nee na nga bokk ca way rafetal ni ci netti li gént xaala daa di wax Yuusuf xanaa gis leen ni laa yaati kumaa du la yéen ñaar xam ne ku ne ci kaso ba dañ koy indil ñam illaa nabatu kumaa nda rek wax naa leen ko bi tayi lii wax naa leen ñam wa ni ñu mel ba mu daatan ñëw la an yaatee kumaa la jëkk ba ñam wa daateen ñëw saali kumaa loolu la seen yéen ñaar mi ma bokk na ci xam-xam yi nga xam ni àlla ma ne xamal na ma ko rabbi sama borom waar na bala leen a wax gént gi da leen di jëkk a waar ñoom ñu nekkal ci kaso bi millata xawmin diine aw nit ñoo xam ne ñi dañ doon jaam xërëm ñoo xam ne laa yoon ñoo gëmuñu bilaa ci yàlla woom te ñoom kaafiroon a weddi lañu bilaa xirati ci dekki bilaa xirati ci àllaaxira dafa nag ku ci am nga loo jàpp moo tax nga wacc wa tabaxtu ma topp millata aday diine sama baay ibrahima sama baay ibrahima ma topp diineem wa isaa xooba ak diine sama baay ci boppam yax xooba maa kaana yellul ñun lanaa ñeel nu an nusrika bu ñu bokkaale billaay ci yàlla min seen dara mu tëral duñ ci rex dara saalika joobu la jëf boobu la wéetal yàlla min fadlillaahi nit ku ko am santal yàlla bokk na ci ngëneelal yàlla alay naa ci ñun waala naasi ku wéetalul yàlla santoo waar na leen ba noppi nag léegi nag mu jàkkaarloo ñun nag bay si ñi yéen sama ñaari gaay yi ma àndal ci kaso bi dama leen di laaj waare bi kat jeexagul yaay saa yu bay si ñi ba tey ñoom lay waar yéen sama ñaari gaay yi ma àndal ci kaso bi xoona yu teqalikoo fu nekk yàlla nekk fa defi juug defi juug xayrun moo gën amilaaw am benn yàlla bu ñu tudde allah waaye du muy kenn xaxaaru te man ñëpp dem na taakan moo gën allahu waaye doo xaxaar tabaarakallah fi ma taabudoona bu ñu jaamu nag min dooni kurul yàlla ilaas maan bi rek ay tur samay tumaa yoo xam ne yéen a ko tuddal seen bopp laataag isaag man nag ah yàlla jëkk a bërxal di tur yéen waa baaw ko mag seeni baay maan sara wàccewullaahu bu yàlla biyaa ci jaam gi min sultaanin benn doole benn lay yàlla nee na inil hukma waa daal yàllaa ko am illa lillahi mbara yàllaa am doole yàllaay atte yàllaa mën a atte illa lillahi déet atte illa lillahi yàllaa ko yor inil hukma illa lillahi yàlla mooma yor atte nag lu mu digle amara dig ne na yàlla dafa digle an laa taabudu bu leetal bu leen jaamu ilaa iyaahu mbarag moom yàlla ko bu loolu day ni isa alika wéetal yàlla diini mooy diine ji alxayimu ji di sax diine ju amul wéetal yàlla du diine ju sax walakin lu fi ne ak saranaasi lu gën a bari ci yéefar yi laa yàlla mën a xam ñu dara ma ngay wax ak ñoom ba tey yàgg te ñu ko doon laaj ñoom ñaar kenn ku nekk dangay laajoon dént mu ne ama ahadukum an daal kenn ci yéen ñaar muy kii jox buur bi mu naan kooku day dana dellu palaasam dañ koo dàqoon ci palaasam waaye dana dellu ci palaasam xam nga ñoom ñaar ñëpp dañ leen a dàqoon ñu am affaire war leen a atte waaw leen nag mandat daare nag ca kaso ba dañ yóbbu Yuusuf ca kaso ba nag ñu fekk leen fa kenn kay kenn ci yéen ñaar dana dellu ci palaasam feen ñetti fan fa yesxi dana joxaat dana nandalaat rabboo sangam ba sayidoo patron ba xamran sangara waamaal axarun daal ki ci des lii feeg ñetti fan mooy ki yore woon ñam wi kooku moom fa yus la bu des na ko salab daa puse na ñam ba dana pour ta bo mooy tànda la ko nag ñu salab ko nag ah nee na ko des na la ko def fa taakul bi nga lekk tayri njanaaw yi min rasi ci sa bopp boobu yi mu ne man dama doon ne ko xuddee attees nag lam rumbi yëg la si ma nga xam ne test bi yaa doon ngeen ko sàkku ubbi ko fii ci mbir mi moo xam da gént ngeen moo xam gént leen da ngeen di fen mbir yi atte nañ ko ba noppi xam ne ne nag loolu xew na ba pare nag Yuusuf na gees waa xaala ma wax la si ñeel ki nga xam ne sànna wóoru ma ni àndoon na ko moom naa jën dana mucc ci kaso bi kenn du ko rey minuma ci ñoom ñaar mooy ki doon joxe ndox mu ni ko boo demee boo ñibbee uskur ni na nga ma fàttalil inda rabbika sa borom na ma fàttaliku sa borom sa yibu ko fa qul lahu inna fi sijni xulaanan maxboosan boo xam ne bi tëj uroofi uskur nii juróom benn la rabbika fa sa sang ba sa yibu ko fa sa buur ba fa sa patron ba fa am saa baajo nag ba mu demee fàttaloo ko mu bañ koo fàttaliku seytaanu seytaane sikra rabbihi mu bañ koo fàttali sangam ba bañ koo fàttali buuram ba ni ca kaso ba moom Yuusuf bil ay siniin juróom-ñaari at am nañu la buur bi nag dafa gént di sabat bi ñëw nag muy Rayaan ibnu Walid buru ci Yuusuf mu gën a dee Yuusuf takk surixa waaye fekk na si bu ne nii nag man araa gis naa raaytu gis naa buur bee gént de ci laay bi la ñu saxali ne gént bi yéefar mën naa nekk am yéefar mën naa gént li mu gént am ci laay bi lañ ko jële saba baqaraatin mu gént juróom-ñaari nag simaanin yu duuf yaa kullu huna juróom-ñaari nag yu duuf yooyu ma nga leen di lekk sabun juróom-ñaari nag ijaaful yu lapp yu wam juróom-ñaari nag yu wam ba doon yaxi kese di lekk juróom-ñaari nag yu suur ne fataas sab asul bulaatin mu génte juróom-ñaari gubi dugub xudurun yu tooy xip yu uxra yeneen ya mooy jamuy uxra yeneen juróom-ñaari gub yaa bi saatin wow koŋ juróom-ñaari bët yu tooy ak juróom-ñaari bët yu wow ah bën bu gën tam gëree na de juróom-ñaar te juróom-ñaari nag yu duuf juróom-ñaari bët yu tooy ak juróom-ñaari bët yu wow muy nag yaal mala yu yéen mbooloo mi ak tooni wax leen ma firi yaay ci sama gént gi am boo demee ci saabu baqara dafa ne sittin dafa toppi baqaratin wax leen ma sama gént gi in kuntum dem ne ngeen taabiroona di mën a firi li ruhiya ñeel li ruhiya ñeel gént xaaloo ñu ne ko asi lii kat alxaasu axlaam jaxase gént la ñun daal xamuñu ko xam naa nu déet ñun bi alimina nuy xam bi taawilihi bi taawilil axlaami kon xamuñu jaxase bi gént xamuñu ko jënd ci sax ñu ne tekk nag ñu ne tekk laa wax la si ka nga xam ne najjaa tijji woon nañ ko mu dellu ci place am mu jóge ci prisooru ñu ne maam mu bokkoon ca ñaar ñi tukkee ca ñaar ñi te moo doon jox buur bi ndox waa Dakkara fàttaliku na mbirum Yunus na mu xame gént fàttaliku na mbirum Yuusuf na mu xame gént baada ummatin gannaaw ab biir mu ne annaa man de unabbi'ukum dinaa leen wax ay lii gént gi buur bi gént mën naa leen ko wax ñu ni ko waxal mu ne ah fa arsidooni kaso ba daal di ne Yuusuf ay waa Siddiq Yuusuf ay waa Siddiq ay waxkatu dëgg bi ay waxkatu dëgg bi aftinaa wax nu gént fi sab'i baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu duuf yaakuluuna ma ngi leen di lekk sabun juróom-ñaari nag ijaafun yu lapp yu wom aha wa sabhi sunbulaatin ma nga ati fi ca fi fi sabhi baqaraatin wa sab'i sunbulaatin ak juróom-ñaari nag i juróom-ñaari gut xuddudin yu tooy xëpp di nef nefi wa uxra yeneen gub ya ñu jamoy uxra yaabi saatin dañoo wow wax na ko laalee ndax man arjiham arjihuma dellu ilal naahi jëm ca mbooloom wasi ji ñuy baj bokk ca mbar ma xaala mu ni tasrawuna da ngay sab a si ne ne juróom-ñaari at dax ban yu toftale nee na yoo xam ne yii mbay mépp day nangu koo wax ma ne am naa dundub ñaari ñaari at koo wax ma ne dund man de li ma am mënuma koo lekk maa sa tun Yuusuf ne leen lu ngeen góob lu ngeen góob te saroo bàyyi leen ko fi sun bulli yi ca guddoom nga bu leen ko bojj bu ngeen góobee bu leen ko bojj ndax mu sakkan ilaa xalilan ndërëm ngeen bojj lu néew bi maa taakuloona ci li ngeen di def dépasse li ngeen di lekk gannaaw juróom-ñaari at yooyu suma dana topp sumu sumu sumu gannaaw juróom-ñaari at yooyu yeete dana dikk aha sabun juróom-ñaari at si daadun yu danseera yu bekkoor min baali saalika gannaaw juróom-ñaari at yu naat yi nee na su ko defee juróom-ñaari at yooyu muy naat yooyu le léegi dem na juróom-ñaari at yu bekkoor ñëw na nee na juróom-ñaari at yu bekkoor yi yaakul na ñu ngay lekk ñu ngay lekk ñoom juróom-ñaari at yi kooku majjaas la ko bayam di wax lekk gi da ko yem ci at mi waaye at du lekk kii dund ci at may lekk lekk nag ngeen leel nag di ci jox dépasse seen ñoñ yaakul na ji nag waaye yaakul na ci loxo bi mi ngi jëm ci at at ya ci juróom-ñaari at gi dafa yem ci at yi waaye at yi du mu lekk waaw ah loolu bari na lool wolof ku bari bayaan la moom itam dagoo bi nit di nuyu yas la ñi ñu bootoon te mbootu ma ñëpp dugg nañ ci wax ji mbaa mbootu mu jàmm waaye wéetoo la ñu naan te koy la wéetoo jaas la majjaas la amin yaakul na ñoñ ña nag di lekk maa qaddamtum la ngeen leen dencaloon moo tax mu sàdda deel gi la ngeen leen jiitaloon dencoon ko lahu na ñeel leen ci dugub ak mba ak li ñu bayoon illaa qalilan nga rek lu néew nag ñi ma tum sunu na ci la ngeen denkaati bu juróom-ñaari at yooyu passé nag su ma toppee yaati dikke nag xaamun am at xam nga sannatun la mu doon wax jam ji di sinin sannatu ci arab ñu ngi koy employé ci at mu bekkoor atum ñàkk at mu neex ci la ñuy employé am parce que yépp tudd sinin xaamun nag soog a ñëw nag moo tax yonent yàlla na woon ñu ni fa labbisa bi xaw yi xamsiina alfa sanatin illaa xamsiina aaman nee na xaamun nag soog a ñëw nag muy at mu neex boo dee ba fii ci at mu neex moomu yoxaasu la kattalikoon naa su nit ñi nag ci taw wooyu fii ci at mu neex moomu yaxsiru na la ñu commencé at di mel nag rek lañ jëm ak ah di def ay sir waa xaala daal di wax nag almaliku buur ba ku firi gént gi lama jaawo rasulu indil leen ma ki firi gént gi itee nii indil leen ma bii ci ki firi gént gi ndaw la laaj si woon gént gi moo dellu ca Yuusuf fa lama jaaw ba nga ko dikkalee rasulu ndaw la mu dikkal Yuusuf xaala ndaw la ne ko Yuusuf kon ne ko Yuusuf moom xaala ji xaala Yuusuf ne ko irjee dellul ilaa rabbika ci sa buur ba ilaa rabbika ci sa sang ba man kat duma génn te waxuñu ne maag jigéen ñi ko tooñ tëj gañ ma tëjoon kaso faw ngeen laaj jigéen ñi ba xam ñoom loola ñoo ko defoon wala man maa ko def waaye duma génn du fekk lépp lu xew ci dëkk bi Yuusuf dégg na ko mu waral ba léegi ku nekk ci kaso xabaar bu xew ñoo koy joxe fekk na bi mu daataan commencé woote am na ñetti téeméer ak yonent yàlla nuyu yonent yàlla nuyu am na ci nitam ñu junni at yu manqué juróom fukk wala bi sax lam fa sax di woote yonent yàlla nuyu dafa yàgg ndax mbindum tuufaan rek bi mu daataan am mooy bi yonent yàlla isee juddoo ba am ñaari téeméer li mbindum tuufaan soog a am te mu ngi xewoon ci nuun yonent yàlla isee bi numéro deux cent trente trente huit loolu nag nga laaj leen nga laaj leen parce que alu laajal maa baalu nisooti ana luy mbirum jigéen ñi maa baalu maa xaalu ak maa saxnu benn la ci arab ana luy mbirum jigéen ña moo tax mu taara ko laajte ña nga xam ni xattal na lelli woon nañu jabat nañu jam nañu ay déewoon seeni loxo uhum lu leen ko yóbbee woon ina rabbi man sama boroom alimun xam na sama boroomu bopp bi sama boroom sama sang bi alimun xam na bi kay diine seen pexe mu boole leen nag ñu boole jigéen ñi nag tout laaj leen xaala wax maa xat bukku na lu ngeen wax lu ngeen wax ci mbirum Yuusuf israawat na bu boole leen laaj leen ne leen lu ngeen wax ci mbirum Yuusuf israawat na ba ngeen ba ngeen sàkkoo Yuusuf an nafsi te neexu ko ci lu dul coobareel boppam ñu wax lañ waxoon rek ñun ñu noonu lan waxoon rek lan wax xul na asalilaahi lan ñu ne aase sell li laay ñeen na yàlla ñun de ma alim naa xamul min seen njaaloo àll yi ci Yuusuf jigéen ñi loolu la ñu wax waaye ki mujj wax nag mooy ki waral mbir mi xaalati wax nag suluxa imraatu fi asis jabari buur ba nee na laana léegi nag xas-xasa fis na fecc nag alxaq dëgg ba gis na fecc xas mooy fis na xasa mooy fecc xas-xasa fis na fecc fis na fecc nag alxaq dëgg ga nag xanaa man nii di suri xaraawatoo maa ko sakku an nafsi ci lu mu neex ko wa inna woon ni que moom Yuusuf la ñu waxoon ni ah ah Yuusuf dëggal na man fen naa loolaay dëgg moom Yuusuf la mel ne saadixiina bokk na ci wax dëgg ni ñee wax dëgg ni maa ko sàkku te neexu ko maa ko def li tax ma wax lii nag saalika googu yi dañtal ma dañtal Yuusuf li yàlla ma ngir na xam sama jëkkër muy Asis ne an nii naka man ah Yuusuf moo ni talabul bara Yuusufa ko wax Yuusuf ni saalika seen loolu nag li yàlla ma ngir na xam ani naka man Yuusuf la ma waxoon du ma wor sama sang boobu nga xam ne moom a jëm bi yàlla laa yi di du jubal mukk xayra la xaa i ne te xam ñi nga xam ne dañu wurub di jaaloo génnee sama bopp wu ma ubaru génne wu ma nafsi sama bopp mënuma ci génnee sama bopp yàlla rek ma ci mën a génne génne nañu ci ndax ina nafsa naka bakkan moom bu doon maag moom rek duma ci génne wu ma ubaru nafsi ndax naka bakkan la amaaratu la ëpp ci bakkan yi la amaaratu dafa bari lu muy digle lool di sooy ci lu neex borom di sooy ci lu ñaaw di sooy ci lu bon nafsul amaara mooy bakkan bi nga xam ne fi mu toll daf lay digal daf lay digal lu bon moo di nafsul amaara nafsul lawaama mooy bakkan bi nga xam ne boo defee lu bon ba pare mu yedd la nafsul mulhima ba tey ci bakkan yi la ak nafsul mutmaina yaa ayatuha nafsu al mutmainatu irjii ila rabbiki raadiyatan marliyatan fadxuli fi ibadi wadxuli jannati ma maa ji place man la toobe ndara ka xam ne rey ma yërëm na ko rabbi sama borom inna rabbi sama borom xafurun ku suturaal jaamam la rey moom ku taxoo yërmande la waxaala wax na almaliku buur ba itoo ni indil leen ma bii ci Yuusuf na ma jege si na ñëw ba ci fii ma may ma nekk nañ ko jëli ci kaso ba mu ñëw ci man astaxlisu danaa ko tànn astaxlisu da tànn li nafsi pour sama bopp rek danaa ko def koo xam ne kii dafay nekk conseil boo xam ne conseil technique la te doon ministre bi nga xam ne premier premier ministre astaxlisu li nafsi moom daal mooy sës ci man daal Yuusuf daal di ñëw falamaa kallama woo ba nga xam ne buur ba wax naa ak Yuusuf xaala mu ne ko innaka al yawma ladaynaa makinun aminun buur bee ko ko wax xaala wax buur bi loo ñeel Yuusuf innaka dëgg yow al yawma tey jii ci misra makkinun ku ñu darajaal nga aminun ku ñu wóolu nga itam soo makkaanatin wa amaanatin ku ñu wóolu nga it la day naa fi nun wóolu naa la ci lépp nag xaala wax na ko Yuusuf mu nekkul ma ala xasaa'inil ardi def ma may kilifa gi nga xam ne ci bind yëpp def ma kilifa gi nga xam ne maa ko yor waaw li tax Yuusuf nag sàmm li mu waxoon moo ko dañu wax ni moo ko wàllanteeroon moo ko wàcc sikkal da nga ko war a fay wàllanteeroon laaj ko lu ci sikk da nga ko war a fay ma ala xasaa'in al ardi ardu misra réewu misra inni naka man Yuusuf
ma ne kon buur boobu di woon jëkkër yi Suleymaan
i naka man abisun aji wattu laa réew mi aji wattu laa manga siin yi alimun te ko xam économie la yàlla nee na waka saalika nekk nii ma leen waxe makka naa lan darajaale li Yuusufa ñeel Yuusuf fil arli ci keer su fu ko neex yendu fu ko neex fanaan ya tabawu muy wàcc minaa ci misra ay sa yasaawu fu ko neex fu ko neex rek mu dem kenn du ko téye kenn du ko téye kenn fépp këram la fépp këram la fu ko neex yendu fu ko neex fanaan yow ay sa yesaaw Yuusuf nag yàlla dogal nag dara ñorul dara amul waaye magasin yaa ngi fees del magasin mépp dégg ñu ni buur bi Yuusuf adduna bi yëpp di ñëw réew mépp di ñëw ma ngay jaay dund te kenn gisul ko boo amee xaalis it gisoo foo jënde lekk at mu jëkk moom mu ni ko andi xaalis ma jaay la bi mu ko weccet te yooyu te seen xaalis ataa lam yabqa baalu dirhamin ba kenn deseetul dërëm kenn deseetul dinaar mbere rekk teere na ko denc atum ñaareel ma ñëw mën a tey ren kat wurus kon de wurus ma jaay la dund ñu andi wurus la yëpp ba mu rekk teere wurus la ba mu jeex jaay leen dund atum ñetteel ma mu ne ay daaba laay jaaya dund fës ak mbaam ak gëléem ak i gàtt ak nag ba mu rekk teere mboolem luy ak jur mboolem luy ndoxteef atum ñeenteel ma mu ne ren nag ay jaam laay jënde dund jaam yu góor ak yu jigéen jaam yi ñu amoon yépp ñu andi ko mu jaay leen dund ba kenn desewul dara atum juróomeel ma mu ne ren nag ay kër laay jënde dund kenn ku nekk joxe sa kër dégg nga mu jaay leen dund ndax kenn mënut a bañ a laaj juróom-benneel ma mu ne ren nag seen doomi bopp kon di sa doom ma jaay la dund kon di sa doom nag ah doo am loo dunde ñu wax doom ya ba kenn deseetul doom atum juróom-ñaareel ma mu ne ren nag seen baati bopp yéen seen jëmmi bopp kuy andi sa bopp daal ma góor fu góor amatul góor fu jigéen lépp moo leen moom ñëpp ay jaam lañu ñu ne ñun de mosunoo gis buur bu xam ne économie nii ñu dajaloo mu ne maa ngi nag maa ngi seedaloo yàlla mbooleem lu ma rekk teere woon ci leen ma delloo leen ko ak seen baati bopp ak seeni doom lépp ma yàpp ma leen ko kooku di ndimbali waa kër de ah waaw nee na yàlla nee na na jotal bi rahmatu nekk suñu yërmande mën na saa gënu neex wala nu lii dunu sànq seetal nu na defal Yuusuf ajral muhsiniina yoolu way rafetal ñi te kat Yuusuf loolu yi ma ko may ci àdduna lépp lim bari bari bari wala ajrul axirati yool ba ca àllaaxira xayrun moo ëpp xayrun moo gën li ma ko defal ci àdduna loolu la seen ñeen ñi nga xam ne amoonoo gëm nañ wa kaanoo te ñu nekk taqoona di ragal yàlla nee na nag ba loolu xewee nag ba paase nag ci biir loolu nag ah d'accord amaat nag wa jaa daa di ñëw nag ixwatu yusufa ixwatu mooy mbokk yi nga bokkal gaño ngeen bokk ndey wala ngeen bokk baay bu dee bokk yi nga bokkal diine ixwaan lañ fiy employé ixwaanin aha ixwatu nag mooy loolu mbokk yuusufa yi mbokkal deret fa daxaloo ñu tabbi xale yi ci yuusufa ci këram fa arafaw yuusufa xam na leen wante woowum te ñoom mun ko yoon a fakk nañu la weññal yuusufa ñoom xamatuñ ko xamuñu ni buur bii ñu fekk si kat mooy xale bañ sànni woon ca kàmb ga loolu nag ba ñëwee nag mu jaay leen ba mu leen jaayee ba pare nag wala maa jaay sa moom ba mu leen waajalee bi jaay seen ci seen waajtaay xaala mu ne bu ngeen delloo bu ngeen dee dellu si aatu itani indil leen ma bi axin ci mbokk bi axin ci mbokk lakkum ñali min abikum yéen a bokk baay ko dafa ni bi axin rek saraay si moo ni mbokk moomu ne moo di benn yaay mi nu ala andi naka man oofi maa ngi matale kay la natt ba ahi waa naata man xayru mun si dina maa di ngolli ku ñuy dalal berndeel naa leen fay leen taatoo ne bu ngeen ko dellu fee te andiw leen bii ci axin mbokk moom rek falaa kay la dootu natt lakum ñe leen hindi fi man wala taqrabo ne réew mépp da ngeen fi jege ah dem leen xaaloo ñu ne ah xanaa bu ñu demee seen raawidu xal set na noon fexe raawid nag ra nag raawidu nag yuuxu la boo xam ne ni fexe raawidu seen raawidu ki koy def da ngay def ni li muy wax lépp dëgg la xal seet na noo fexe ah abbaahu ca baayam an wu ñu jéem a andi mbokk moomu way naa ne que ne la fay la na daanu def li mu wax dañ ko defee ba pare nag wax xaala moom Yuusuf wax na li fityati wala fityaan xaleelam ya waa këram ña bëkk néegam ya wala li fityati xaleelam ba bëkk néegam ba sosoon ci moom wala xaleelam ya ndax ij aloo la wax def leen bidaa atahum seen delloo leen yére yi nga xam ne moom te booba dund ñu ngi koy jënde yére seen bagage yi ñu jënde woon dund bi delloo leen ko te buñ ko yëg na ngeen ko def firi alim ci seen yére ndax buñ demee gis ko xam ne dañu leen koo mayaat ñu dellu si ñu fa bagage yi ñu jënde woon dund ba defaat ko ci seen yére te yóbbu ko daxañ ko ci mu ne laalu ndax ñoom yi arifoona ñu xam ne kenn téyewul li ñu jënde ku jënd ba noppi la nga jënde woon ñu delloo la ko def ko ca la nga jëndoon i seen xale boon da wëlbatiku na yu laalam jëm ca seen ñoom laaloon ndax ñoom yar gowoon ñu gaaw a dellu si fala daa rajowa ba ñu delloo nag ilaa din ko seen baay te tekkee gu ñu bagaas yi xama gu ñu lu xel xaaloo ñu daal di gaaw te ñu nga naan yaa baanaa yow sunu baay mun naa terees noonu alkaylu natt ba min naa ci nun naa ñu teel bu ngeen fi jënde fa arsid yebalal maana ànd ak nun naa ñu bu demul du nu natt axaanaa sunu mbokk boo ko booree nun rek nakk tal boo ko booree nun nag du nu natt boo ko booree nun nag nu natt muy tontu li way naa nekk nu la aabi soona way wattu lanu la woo ñeel li ci indi loolu way wattu lanu la woo ñeel mbokk moomu le bu dem waaw xaala wax xaala wax yàqub seen bàyyi mi ah xalaa ma noppi ndax man déet ma di leen wóolu naka naa leen di wóolu duma leen wóolu àll ci xare bi xaraa ilaa kamaamantukum dama woon rek alaaki ci mbokkam na yuusuf loolu ngeen waxoon te yuusuf de min qablu ci la jëkk da ngeen daataan def lii te laaw buur yàlla nag ah xëyrun moo gën a ifsan ak waxtu woote moom arhamu raay mi na mooy kii yërëm ñi yërëme moo leen dàq yërëme moo leen dàq yërëme wa arhamu raahimiina yàlla am na malaayka moo xam ne bu xëyee rek day wër ku mu dégg nga naan yaa arhama raahimiina rek mu faj saajo te day wër rek te loolu rek lay déglu yaa arhama raahimiin yaa arhama raahimiin jëlloo ko ne dañ ko yóbbu sawara malaayka yi war mbugal gi yàlla ne leen fu ngeen jëmee saa waaj ji ñu ne ko ah te ba dégg naa ko mu naan yaa arhama raahimiin te kooku mën a saa waaj ji àgg na de yaa arhama raahimiin yaa arhama raahimiin ka nga yaakaar ne moo lay dimbali ka nga yaakaar ne moo lay yërëm ka nga yaakaar ne moo fi ëpp yërmande yàllaa ko ëpp yërmande ci yow yàllaa ko ëpp yërmande ci yow ci yow yàllaa ko ëpp yërmande ci yow waaye nag bu doon jëmm dama naan dafa gaaw a gedd te mën a dënniirlu boo ko ca boolewul nag du ca bokk bokklu no booleel bàyyee naa ko ko yàlla koo ko booleel mu ne baal naa ko na jël booleel mu ne na jël na jël na jël waaraam rahimin wala ma fàttoo ba ñu wubbee nag wax nañu li ñuy wax ba pare mattaamu seeni bagage wadda doo ñu fekk bidaatum seen la ñu jënde woon dund seen marchandise yi jënde woon dund seen i yére ak seen i nangam nangam ak seen i nangam rudde ci delloos na ko illeen ci ñoom te yóbbuñu ko bañ ci seen bët dalee rek xaalu ñu bokk ni yaa baanaa yow sunu baay maa nab kay lu ñuy waxati ayu sayin maa nab kay lu ñuy sakkooti ci teraanga jinu buur bi defal mun na koo fay lu ñuy yóbbu sunu mbokk lu ñuy waxati maa nab xi xaasi yi lii bilaat naa mooy li ñu jënde woon dund bi rubbati dellu nañ ko ilay naa ci nun wan nan ñun te daan daanu dundal axalanaa sunu ñoñ dund bu doy te bu nu demee wanaan fa su daanu wattu axalanaa sunu mbokk dara du ko dal wan nas daadu ba nekk mu dolli ko nag kay la bahirin sëfu gëléem nattu gëléem sëfu gëléem daanu dolli ko nag beneen sëf ci bilyaamin waaw ci bilyaamin yi nga xam ni boo na ko joxee nu yóbbu ko alika loolu kat bàyyi kay lu natt la kat yasirun ñu si run ko jàppandi loolu kat bàyyi baax na de xaala wax yàqooba ah lan mursiloo man de duma ko yebal maa ko mu ànd ak yéen atta tuuti ngeen ba te ngeen ma joxee naw si xan wëllëre da ngeen di defanteeg man wëllëre de la kaat na ni ne da ngeen ko andi bii ci Benyamin ndarek ilaan waxtu ndarek da ngeen a teeg bikum ci yéen ñëpp ngeen tàmmatoo ngeen bokk dee yéen ñëpp ñu bokk leen jàpp loolu loolu daay da ngeen ma jox wala du ci loolu ñu ne incha allah incha allah fa la maa taalu nga xam ne jox nañu seen bàyyi maw si xawm seen wala rek xaala wax yanqoob allahu yàlla day wakkilun wakkil na seede na ala ma naqulu ci li ñuy wax man ak yéen mu ñaane leen ba pare wa xaala wax yanqoob bu ngeen demee yaa daan yéen sama doom yéen sama doom yi laa tadduxuloo bu leen tàbbee dëkk ba mil baa dun ci burtu waayu dun bi du benn ñu ne Yaxooba da ko wax ngir ragal cat fukk fukk ñeeg ñaar Yuusufa nga fële ah benn yaa mi noonu ñuy àndal muy fukk ak benn ñu ne dafay ragal gimiñ ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kat nee na ah ah gimiñ dana dugal gëléem ci kaddir dana dugalit góor ci bàmmeel mais nag koo xam ne lu mu xool xoolaat ko xoolaat ko mu yokk waxteef koo xam ne ci lu mu wax waaye gindi yi ñu koy waxal daal xëy na am na ca benn xëy na xëy na xëy na ndax ah suma maam ci jihaat ga suma maam bi doon jihaatal Cheikh Omar laaj na ko Cheikh Omar bi mu ne lu ci waaye jaaxle na ko laaj dama lay laaj ndax am na mu ni tekk ba yàgg mu ni ko lu amul du am tur amul du am tur ñu ni moom lu tax yow xoob di yonente bu pare di ragal yooyu naan leen bu leen tabbee benn bunt ñu ni cat la doon ragal ndax waa kër yom xooba ñoom ñëpp dañoo rafet fukk ak benn yëpp dikkandoo ci bunt mu ne yima ci ragal daal lii la damaa ragal naa ci lan nañ ragal naa ci ñu ni ñii lu ñuy wut te ñu fexee leen du ngeen àndandoo ah bëgg naa ci itam dëkk bi ñeenti bunt la bunt bu nekk ah ñeent dugg fa bu ko defee da ngeen xam affaire dëkk bi loolu it bokk na ci li tax ma wax ko laa tadxuloo min baabin waahidin ah laa tadxuloo min baabin waahidin ajur sëñ Adi Touré mas naa faa dem muy yónnee di wootelu borom dëkk bi borom kër yi ci dëkk bi yépp kenn ku nekk sa ndaw mu ne ko waaw papa di li moom pour lan la kenn rek la bu fekkee da ngaa yónni benn ndaw mu dem ca kër gee jóge fa dem ca kër gee jóge fa dem ca kër gee ñu fa bu fekkee ne kenn ku nekk rek kenn la woo. ci laay ji la teg la teg. boo dee woote noonu ngay def boo bañee li ngay woote yàqu. waa doxuloo dugg leen ne na ab waay bi ci buntu mu tafaraqati ñeenti buntu buntu bu nekk na ko ñeenti jaar nee na nag wax na di jëriñ an kum ci yéen nag ci mbugalug yàlla lu mu leen nar a teg mën a laay ci lu yàlla nar a tege ñu ni seen dara du ci jëriñ dara nag ñu ni nag ah ndax inni innil hukumu déet atte ba illaa lillahi nga rek ñaan na yàlla bu ko xasee atte ba noppi jeex na tawakkaltu wakkilu naa man yan xóob àll ci yàlla wa bare tawakkali na wakkilu mutawakkiluna wa wakkilu àlla ci yàlla ah wala maa daxaloo ba ñu tàbboon naka leen ko mu leen ko digale woon ñu ne Isa amaroon na ko seen baay waxee woon abdoom seen baay maa kaana nekkul nag yox nii di jëriñ mi ne laay ci yëfu yàlla xam hu walif leen musal leen min seen dara nda rek ilaa xaajatan aajo la rek bu wax xooba wax aajo la boo xam ne bi moo ko tànnal boppam fi nafsi yoo xooba ci bëkkam yoo xooba loolu daal moo ko neex xaddaa yàllaa ko dogal ci moom nag mu neex ko mu wax ko waaye terewu nag yi mooy ni ki yoo xooba la soo yil min borom xam-xam la de yàlla nee na yaa xooru ko am xam-xam la waaye nag li nga àlla na ñeel li mu ko xamal waaw li nga am solo la ndaxte ñu ñu ñu leen bu leen dugg ci benn bunt ah te du jëriñ dara ci dawal ya ah kenn la fi ne ak soro naa si lu gën a bari ci yéefar yi laa yàlla moo na xamuñu dara wala ba daxaloo ba ñu tàbbee nag allah yuusufa ci yuusuf dem nañu nag ca buur ba awaa mu tàpp axaawu mbokkam ma mu tàpp awaawu mbokkam ma mu ñëpp di mbokkam ma taf ci boppam illee yi ci boppam moom yuusuf xaaral mu ne mu déy ko na ko indi naka man ana man nii axoo ko maay sa mbokk mañ ne mañ ne dugaloon ca kàmb ga ca teen ba falaa ta tey bul am dara lu la naqari bi maa kaanoo ci seen yu bon yi nga xam ne yaxambaloon na ñu ngi koy def ci kañaan bala ci dara naqari nag ba nga xamante ne nag waajal na leen ba pare nattal leen bi jaay seen ci seen waajtaay jaala mu roo jaala mu denc si kaayata nattukaay ba nattukaay bi nattukaayu wurus la moo tudd it suwaaha moo tudd si kaayata ndax da ci daan naan du ci natt si kaayata wurus la woon fii raxali axiyi mu yeble na leen na ngeen ko denc ca ca bagage si Benyamin na ngeen ko denc sama bagage su mbokk moom mu le ba mu ko ci dencee ba pare nag ba ñu dëdd nag suma suma nag topp yéene nag muwasinul aji yéene naada munaadin baada infisaalihim min majlisi yuusufa dinaa bañ jógee ca kër buur ba aji woote woote aji yéene yéene asina musinun yoo yoo woote kaw ne na koy nodd ayatuhaal huur yéen jëgg ji ayatuhaal huur xaafila mooy jëgg bu dem ba wëlbatiku la ñu tuddee xaafila ay yéen jëgg ji ñoom ñëpp ñu geesu innakum la saarixoon ñu geesoo rek la keebu xitaab bi ñëw nee na la lu foor la ci bayaan yaa ayyuha allazi ca ca ijri yaa ayyuha allazi musila alayhi sikru innaka la majnun yeneen ko mbooloo mu bari ñu wër ko ñu ne ko yaa ayyuha allazi ay ki nga xam ne musila wàccis na sikru alquran alay ci moom kenn du geesu moom rek ñu ne ba mu geesoo ayyatu alhiir pour ñu jëgg doo geesu ñoom ñëpp ñu geesu mu ne innakum yéen ndey ñëpp la saarixoona ay sàcc ngeen xaaloo ñu ni waqbaloo ñu daan lay jublu woon leen kanam alaykum masa tafkidoona lu ngeen nemmeeku lu ngeen nakk lu ngeen sàcc xaaloo ñu ne nag xi du ñàkk nanu suwaal malik ñàkk nanu nattukaayu buur bi ñu ne waaw naka ci pexe nag ñu ne kum feeñu ci moom nag waa kër yaa xooba la ñuy laaj ñu ne nag wala man koo xam ne jaa at dikkee ne bii ci nattukaayu buur bi mu ngi génn ci bagaasam himlum dina am ab sëf himlu bahirin dina am sëfu gëléem daañu ko ko jox waa naa taman kat sa yi mun dogu naa bii ci sëf bi jox ko kum feeñu ci moom ko ko génnee xaaloo ñu ne tàllaahi taamat ismu jalaal bi rek lay song taalaahi gis naa ci yàlla taaraxmaan dee su ko wax kenn du wax taaraxiim taalaahi rek taalaahi gis naa ci yàlla ni ah laqad alimtum xam ngeen ni maa jéenaa ñëwunu ci réew mi lu nu si da ngir nu yàq fi lar li ci réew mi wa maa kunaatu nu nekku nu saarixi na di sàcc nun waa kër Yaxoob xaaloo ñoom nag ñu ñu seen ka doon yéene ka doon laajte xaaloo ñoom ñëpp ñu bokk wax ni waaw léegi nag fama jasaa'uhu luy pay ku sàcc nag in kuntum dem nekk ngeen nag kaasibiina di fen di juum xam ne da ngeen a sàcc ñu ne ñun maa kunna saarixiin ñu ne waaw bu demee ba wóor ne da ngeen a sàcc nag xaaloo ñu ne jasaa'uhu muy mubtad man koo xam ne wujj de fekkees na waa kër ya xooba wax loolu de fekkees na fi raal yi ci ay bagaasam fekkees na ca suwa al maliki am mooy càcc gi foofu moom kooku le càcc boobu le jasaawoo mooy pay li mu sàcc dañ koy téye foofu jasaawoo maanaam saalika pay googu mag si la ñuy fee saalimina wooy tooñ ci réew mooma waaw te ñoom ñoom seen réew ñoom seen réew looloo fay atte fa badda ñu njëkk wisit nag ka doon inspecteur ba ka nga xam ne moo doon wisit njëkk wisit bi aw xeetin bi aw xeetin ca bagage gaañu xable bi yaay axi ci la jëkk bagage mbokkam ma doon daataan waga wisit bagage Benyamin bagage ñii la jëkk wisit ba mu jeex nag mu dem ca bagage Benyamin nag su ma topp nag istaraja mu génnee nag la ñu sàccoon mu génnee siqaayata ba la nga xam ne moom lañ leen doon jéem min wihaai axi ca bagaasu mbokkam ma yàlla na leen nag déglu leen nag ma wax leen te saalika nekk nii nag ci dinaa la nu wax yoo yàlla du fexe ci dinaa yax bi yaxu pexe la waaye doo ko firee pexe ci dinaa la nu wax yoo li yusufa ñeel yusufa ci dinaa la nu xamale li yusufa ñeel yusufa ne maakaana nekkul yuusufa li yaaxu sa ngir na jàpp axaawu mbokkam mi raqiqan ak njaam jàpp ko nag pour mu def ko jaam fi diinil maliki ci atte buur bi loolu taxul mu jàpp ko de di ko dóor ak di ko tëj déedéet am na leneen ilaan li saa ndara neex na laahu bir yàlla muy xam-xamu yàlla nag ñëw nag ci masi am nee na nar fa dina nu yëkkati daa jaati mën na saaw darajee koo xam ne ki neex nanu آدم من نساو وفوق كل ذي علم عليم ذي علم عليم ذي علم عليم waa kër yow xooba ay ulamaawu lañu lii bari bari bari bari bari xam-xam yàlla nee na xamuñu lii ngay bëgg a def xamuñu ko woon wa fawqa kulli si ilmin nee na nekk na ci kaw bépp boroom xam-xam alimun aji xam alimun boobu nekk na ci kawam aji xam alimun boobu nekk na ci kawam aji xam alimun boobu nekk na ci kawam aj aji xam ba ci alimun yàlla nag féete kaw ba mu rëkk ci yàlla nag mu dakk dab ci kaw xam-xam yëpp nag moo tax wa fawqa alimun nag alimun nag waaw حتى ينتهى الى الله قالوا من ايه ان يسرق من سكنا وقد سرق سكنا اقول بك لو نيالك من قبل تلدك ndax sàccoon na ci jur ci jur yaayam sàccoon na xërëmam Yuusuf sàccoon na ko ndax bañ mu jaamu xërëm sàccoon na xërëmu maamam ndax bañ mu jaamu xërëm nen la la la